dañoo bëgg rek nga dox dox bu teey ànd ak wegu ànd ak wekk nga jëm ci moom te bañ a daw du tee maye nañ nag boo bañee ràkk raw la nga waaxu nag te bañ a daw waxati daalu sufoofi ak yemoog sàppe ya yemale sàppe dañ koo fonk lool ba yonent bi ak gaa yu baax yépp bala ñoo taxawal julli dañuy wax yemale leen sàppe yi di ko fàttalee loolu ndax bëgg sàppe yi yemoo képp maanaam sàppe su njëkk si na dem ba fees bala ñoo tàmbali seneen te muy mbëgg ak mbëgg tànk ak tànk lépp tolloo watarku tasmiyati ak bàyyi wax bismillahi fil faridati fil faridati ci julli farata bu dee ci yoonu maali moom dañu sib nga wax bismillahi rahmaani rahim ci boo dee julli julli farata bu dee naafila nag moom sibbuñu ko ci wa zikru ak tudd yàlla baxda salaami ci gannaaw sëlmal ba mina salaat ci julli ga bil adkaari ca sikkar ya alwaalidati aju rot mooy aju dikk ka xiraati ayatil kursi yi ni ki jàng ayatil kursi yi wa tasbih ak saabal ga salaasa ñett wa salaasina ak fanweer wa tahmid ak sant yàlla ga salaasa ñett wa salaasina ak fanweer wa takbir ak kabar ga salaasa ñett wa salaasina ak fanweer wa xatmil mi'ati ak mot ne téeméer ba bi ci wax ne laa ilaha amul benn buur illallah ndare yàlla waxdahu moom rek laa sharik amul jenn aji bokkaale la hoo ñeel ko la hoo ñeel na ko almulku nguur ga wala hoo te ñeel na ko alhamdu cant ga waxoote moom yàlla xadirul mooy aji àttan xalaa kulli shay'in ci mépp mbir maanaam bokk na ci ngëneelu julli boo sëlmalee xeeti sikkar yi nga xam ne dikk na bàyyi ko ci ku baax ka nga def ko bokk na ci boo sëlmalee nga wax astaxfirullah ñetti yoon wax allahuma anta salaam wa minka salaam des na wax tabaarakta wa taalayta yaa dal jalaali wal ikraam su ko defee nag nga jàng ayatul kursi yi benn yoon ndax li addis bi wax ne man xara ayatul kursi yi dubura kulli salaatin lam yam naxu min duxoolil jannati illa an yamuuta maanaam koo xam ne gannaaw julli gu ne da nga jàng ayatul kursi yi dara dox sa diggante dara doxul sa diggante àjjana lu may faatu rek am na nett li bu ci boole xul huwallaahu ahad ba tey ne da ngay boole kursi yoo xul huwallaahu ahad bu ko defee nag nga def sàbbaal yi nga xam ne miin nañ ko mooy li ñuy wax tuddee tasab daal lañ koy wax ci wolof ñu wax subhanallahi fanweeri yett teg ci alhamdulillahi fanweeri yett teg ci allahu akbar fanweeri yett lu téeméer bi manqué benn nga motlee ko laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir faslun yukrahu def na sib addu xaawu ñaan baada takbirat ihram yi ci gannaaw kaabaru armal gannaaw boo kaabare kaabaru armal bi laata ngay jàng fatiha ji diggante boobu sib nañ nga di fa ñaan wa fi rukkoo ak ci rukkoo ba ba toll ci rukkoo dañoo sopp rek nga sabaal ni ki subhaana rabbiyal azim wa bihamdi waaye sib nañ nga di fa ñaan yàlla may ma nangam wa fi tashahudi ak ci taaye ja al awali ji jëkk taaye boo xam ne doo caa sëlmal rek sib nañ nga ñaan ja te ko tuddi bu jëkk rek waaye mooy taaye boo xam ne naroo caa sëlmale wa taxawudu ak ahoudu billahi maanaam léem muslu seytaane wal basmalatu ak bismillahi rahmaani rahim fil faridati julli farata julli farata sib ni nga wax ca ahoudu billahi mbaa bismillahi julli naafile na mënees na ko ca wa sujoor ak sujoor xalal bisaati ci kaw ab tappi wal wal min diili akub sarbet wa naxwihi ak lun roog moom waxalaa tarafil kummi ak ca catul lafu mbubb wa maanaam di julli bañ a taq suuf tax ngay sujjoot ci ab tampi wala sarbet wala sa lafu mbubb mbaa sa lafu kaala sib nañ ko lu may na nga xam ne foofa daa tàng nga bañ tàngaayu gaañ la wala dafa sedd boobu nga bañ sedd ba gaañ la su boobaa kenn du ko sib waaye boo ko defee ngir bañ a taq dong moom ñu sib ko wal irtifaatu ak geestu li xëy di darooret ñellu du lor di julli di geestu moo xam ne nga geestu ci wet ndeyjoor mbaa wetu càmmoñ ba tey loolu sib nañ ko waaye nag soo wañal bi ko ba say ba say tànk sax wañal di ko wan gannaaw xibla nag su boobaa mu yàqu moom wa tashbikul asaabihi ak ràbbale baaraam ya wa farqaxatuha ak seenuk foq di julli di ràbbale say baaraam mbaa ngay foq say baaraam ba tey sib nañ ko wal xabas ak foye bi xaatamihi ci jaaroom ba aw bi lixiyati yi wala ci sikkimam ba di julli di foye sab jaaro mbaa ngay foye sab sikkim mbaa di foye leneen sib nañ ko wa tax miidu basarihi ak gëmbal gisam ba julli di gëmm te amul sabab maanaam bañoo xool lu araam amul lay bëgg a fatt mbaa dara nga jekki-jekki gëmm rek loolu sib nañ ko waraf xoo ak yëkkati ci samba ila sama jëm ci asamaan di julli teen di xool ci asamaan sa itam loolu sib nañ ko dañ sopp rek mooy ngay xool fa nga xam ne fa nga nar a dëpp sëb jë boo di sujjoot dañ ko yeesu woon léegi wa dammul xadama yi ak tànk yaari ndëggu ya maanaam di julli sësale sa ñaari tànk ba mel ni dañ laa jéng loolu ba tey sib nañ ko dañoo bëgg nga yàng ñaar tànk ñi ñu soree wa wadox yeddi ak teg loxo ba xaalal xaasirati ci kaw sàlliwet ga teg sa loxo ci sàlliwet gi ñu wax jatu loolu ba tey sib nañ ko wa tahadisu nafsi ak waxtaan ak bakkanam bi umóori dunia ci mbiri àdduna maanaam di julli di xalaat lu jëm ci wàllu àdduna ba tey sib nañ ko waaye nag soo demee dem ba xamatoo dara dara ci julli ga moom day yàqu waaye li fay yaa ngi xam dara ci julli ga nag moom sa tuyaaba mooy manqué rek ndax la nga teewlu képp lañ lay fay waaye nag yaa ngi xam la ngay def rek kon moom julli ga baax na ci sharia waxam lu cheyin ak yanu dara mooy def dara rek bi kummin ci lafu buubu aw famin wala gémmiñ di julli def ci sa lafu buubu mbaa ci sa poos mbaa ci genn wet ci say wet mbaa ci sa gannaaw mbaa ci sa càmmoñ mbaa ci sa ndeyjoor mbaa daal loo xam ne moom sam xel mën na ci jax-jaxe sam xel du ci nekk boo dee jub loolu sib nañ ko moo xam xaalis la moo xam leneen la daal lu nar a jax-jaxe sam xel rek tàggoo la moom bala ngaa julli la nga def ci gémmiñ ga nag moom bu la tee mën a wax baat yi mbaa lu mel ni tàngal nga xam day seey nga di ko mbuuj ju mel ni lekk moom day yàq julli gi la muy wax naa sib nañ ko rek yem ci mooy la nga seex day mel ni ab dërëm mbaaw xeer nga xam ne moom nekkul luy ruy ba noppi nag àggul ci mën laa te mën a wax araf yi saa koy su boobaa sib rek lay doon waaye ba àggee ci doon ak lekk mbaa ma teelaa mën a wax araf yi moom daal di bëgg a yàq wasalaatu ak julli bi tarix yi man ci yoonu koo xam ne yamuru dana romb bay na yedday diggante yaari loxoom maanaam di julli foo xam ne wóor na leen aw yoon la woo xam ne am na ku fi romb ba am na ñu fi romb yow bëgg boo dee julli nga jullee foo xam ne du yoonu kenn kenn du fa aw mbaa lu ku fa aw lu bett lay doon waaye fekk aw yoon nga di fa jullee sib nañ ko ndegam am nga feneen waqatlul borxoosi ak rey aw fel wal xamlit ak aw teeñ fil masjid ci biir jàkk ji biir jàkk bëgguñu nga rey foofu fel mbaaw teeñ ndax dañoo bëgg jàkk ci ñu fonk ko sellal ko loolu bañ koo jege faslun li ab dog la day leeral yi nga xam ne ñoo yàq julli nag ci dog bi yu bëgg a dugg tabbatulu dana yàqoo asalaatu julli bi tarki shartin ci bàyyi benn sart min sharaitiha ci ay sartam maxal qudrati ànd ak man muy àttan mooy man xale ci moom yenn sart yi nga xam ne mooy sarti julli niki laabu xadas ak laabu xabas ak jublu xibla ak sàng awra yooye boo ci xam ne mën nga ko ba noppi léegi defoo ko rek julli gi daal di yàqu am na teqale nag ndax am na ci yoo xam ne moom bu fekkee fàttee tax defoo leen mel ne ñàkk julliwaali sobe boo ko fàttee bu julliwaali sobe du ko tee baax wala ñàkk sàng awra laabu xadas daal moom mooy ki nga xam ne boo ko fàtte woon tam moom du tax julli ga baax ni ki fàttee jàpp mbaa fàttee sangu farata te wax nañ ne mbaa bokk nu leeral ne su waxtu yu jotee ba ba jeex te amoo fa loo laabe du ndox du loo tiime kooku julli wàcc na la te doo ajoo nga di ko fay kon li waagoon rek mooy boo dee julli bàyyi benn sart sart julli yi rek te yaa ko tey mënoon nga ko julli gi yàqu wa bi tarki takbiratul ihram ak ci bàyyi kaabaru armal aw niyyati wala yéene aw xayrihima wala kudlu ñoom ñaar min arkaaniha ci ay ponkam ba tey boo ko tayee bàyyi benn farata ci farata julli rek koy kon yow da ngay fo ndax ne moom da nga nawee julli xam ne lii farata la nga tey ko bàyyi ko yow da ngay fo su boobaa julli gi day yàqu wa bi tarki sunnatin ak ci bàyyi sunna waaxidatin bu di benn xamdan ci tey ala ahadil xawlayni ci benn ci yaari wax ya am nañu ne sunna soo ko bàyyee te tey ko julli ga day yàqu am ñu ne déedéet du yàqu du yàqu nag moo gën a wóoru mel ne ne daa am ñu wax ne nag boo sabantalee sunna bu bàyyi ko moo sabantal farata bu bàyyi ko ñooye moom day yàqu waaye wax ji gën a wóor daal mooy bàyyi sunna moom du tax julli ga yàqu doonte yaa ko tey wa bi kalaami ak ci wax li xayri islaahiha ñeel lu dul defar julli gi nee na boo waxee wax joo xam ne defar julli ga taxut doon daam ku la ca forcé ba wax ba daa mënta ñàkk nekk ngay julli ba nga seen gumba guy bëgg daanu ca pax ma mbaa ci sawara wa nga xam ne kon war ngaa wax ndax sooyu bakkan ba du tee julli ga moom yàqu bu wax ja ajoo ci dafa julli ga nag moom du ko tax a yàqu mel ne ngay sàbbaal sa ilimaan fekk mu mën a juum mbaa lu mel noonu wa bil fihli ak ci jëf al kasir ji aji bari min xayri jën si salaati ju bokkul ci xeetu julli kal machine yi ki dox al kasir bi aji bari bi xilaafil qalili ci wuuteeg aji néew jiddan lool kal machine yi ki dox li suturatin jëm ci satir aw furjatin wala ab yër-yër mooy ab yaatu-yaatu ba tey bu dee julli jëf ci julli ga jëf ju bari ci ca bokkut mu yàqu niki niki dox bokkul ci xeetu julli bu dee julli dox dox bu bari doonte moyut xibla julli ga yàqu waaye dox bu néew lool ci biir julli ga du ko yàq sañ na bu séenee lu mel ne poto lu mën a nekk satir mu dox tuuti dem def ko satir mbaa séen ca sàppe sa ca kanamam fu mën a dugg mu dox dox bu néew dugg ci loolu du yàq julli ga wal xamsati ak bës aw yaram waxaakil jasadi ak wokk aw yaram ba tey di julli di bës saw yaram baa ngay julli di wakk saw yaram su fekkee ne bariwul lool kon du yàqu waaye su baree lool dañ koy boole ci jëf yu bari di bokk julli gi mu daal yàqu kon jàppal ne julli bës saw yaram ak wakk saw yaram su fekkee ne bariwul du yàq julli ga waaye bu baree lool daal yàq julli ga ndax dañ koy boole ci jëf yu bari yu bokkul ci julli wal ak lu lekk wa shurbu ak naan moo butilul aji yàq la julli mutulaxan ak lu mën di dikkee maanaam julli lekk mbaa julli naan moom faaw julli nga yàqu moo xam yaa ko tey moo xam téyoo ko ci wax ji gën a wóor daal moom mooy faaw day yàqu daa am nag ñu wax ne bu fekkee téyoo ko da ngaa juum rek du yàqu mbaa balaa yàqu sax nga boole yaar yëpp lekk naan yaar yëpp waaye boo defoon kenn ka bàyyi kenn ka am nay teqale waaw wa bi siyaadati fi'lin ak ci dolli jëf min jin si salaati ju bokk ci xeetu julli ga xam dan cig tey aw jëxleen baa ci réer muy ak umpule mutulaxan ak nu mën di demee maanaam boo dee julli yokk ci julli ga loo xam ne ci xeetu julli la bokk sax waaye yaa ko tey xam kon ngay fo mais na ngay julli tey ko rukkoo ñaar yoon mbaa su mbaa su jóot ñaar yoon loolu xam nga ne fo rek la mbaa sax ñàkk xam a tax nga def ko maanaam boo du julli tey rukkoo ñaar yoon ndax ñàkk xam moo nga tey ko ñooy moo faaw julli gi day yàqu wa sahwan ak ci njuum de in kaptura ndem bari na maanaam ba tey bu fekkee la nga yokk ci julli ga ci xeetu julli la bokk waaye la nga koy ñàkk tey yépp teewut daa bari wala dañoo waxoon ne ak na ko leer sax far ak julli boo juumee ba yokk ci benn rakk doom du ko tax a yàqu lay tax mu yàqu daal mooy nga juum ba yokk ci julli ga li mu rakk yu toll na julli ga mel ne tisbaar boo ko doon julli juum ba def ko juróom ba juróom benn ba juróom ñaar du ko tax a yàqu waaye boo ko tollantee mu juróom-ñett nag moom boobu la yàqu suba itam ñaar la boo jiwee ba yokk ci benn rek du ko tax a yàqu waaye boo ci yokkee ñaar nag mu toll ne ay rakkaam muy ñeent nag mu yàqu kon jàppal ne boo jiwee ba yokk julli ga loo xam ne xeetu julli la waaye daa bari bari waayu li mu ràkkee ñaar ca nga ko far su boobaa la yàqu bu dul loolu nag da ngay sujjoore ba xam ne salaam waaye du yàqu ma tax mu ni waxoo moom bari nga rakk xataani mooy ñaari rakk fi su fi ci suba waar baax rakkaat ak ñeent rakk fi duhuri ci tisbaar wal xasri ak takkusaan wal xishaay ak gee suba moom ñaar dong la boo jiwee ba def ko ñeent mu yàqu tisbaar takkusaan gee ku ci nekk ñeent la bu soo juumee ba def ko juróom-ñett kum ci mën doon rek mu yàqu mu des nag timis bi nga xam ne ñett rakk la moom dañ caa wuute am nañu ne boo ci yokkee ñaar rakk rek mook suba ñëwee moo mu daal yàqu am ñu ne déedéet mu ngi mel ne julli ñeent rakk yi balaa yàqu rek nga yokk ca ñeent rakk wa man salla ku julli salaatan julli taa matan guy aji mat ataagu dikkee na xalaa nizaamiha ca nosinam wa wala ca tëralinam wa wax wate moom laa yaxlifu du xàmmee alfarda farataja min as-sunnah ci sunna sa wala sunnata du jage ni sunna sa min al-mustahab ci lañu sopp taxile waxes na ne inna salatahu naka juleem nga baatul aji yàqu la wa sahih waaye wax ji wóor mooy annaha naka moom sahihatul aji wér la in axasa ndem jëli na wasfaha meloom wa xan xaalimin ci aji xam koo xam ne mën naa jullee nañu war a jullee ci zahir nga xam ne moom du bàyyi dara ca farata yaag sunna yaag dara dara dara moom daal bu jullee ba noppi doo xeebat na mu jullee ci genn wet waaye nag taxul mu xàmmee farata ak sunna ak lu ñu sopp ak dara dara julli gu mel noonu nañ caa wuute am nañu wax ne du baax ndax ñàkkam ñàkk xàmmee farata yaag sunna yaag atte ya wax ji gën a wóor nag mooy dana baax kay ndegam daa fekk borom xam-xam mu xool na muy jullee mu roy ja mbaa borom xam-xam ne ko defal nangam defal nangam defal nangam mu xam noona di wéy ca noona wax ji gën a wóor mooy waaw ak julleem dana baax ndax yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daa waxal ne sallu kama ra'aytumuni usalli julli leen rek ni ngeen ma gisee may jullee kon nag jàpp nañ ne ku mel ni julleem war naa baax tasul li ab dog la sujoodu sahwi sujoodu jamooj sunnatum sunna la li naq ci sunnat ngir wàññi sunna mu àkk des ci suñu fedd bi min sunna ni sulaal ci suñuy julli sujootu jamooj dana leeral mooy lan la koy waral nag mooy nga juum ba wàññ ci julli gi benn sunna bu dëgër mbaa ñaar mbaa bokk sunuy wayef yi nga bàyyi nga wàññ cee ñaar mbaa lopp ñaar takk-takk bi daal moom mooy sunna yuñ fedd yi bàyyi ci benn képp moom du tax a sujoot lu may yaloog biral yaloog biral moom kenn ku ci nekk benn nga waaye saa yoo ko bàyyee rek am na sujoot boo cee sujoot lu wees na yaloog biral moom bu dee benn su na képp nga bàyyi moom du aajowoo sujootal boo bàyyee ñaar nag moo xam ci ñu fetli la moo xam ci yeñ wayefal la yeñ fetliwut du tee ñu digal la sujoot wax yee ñoom su na yiñ fetli samaani yet juróom-ñett lañ su na yu dëgër yi moom juróom-ñett la qiraatuma siwa umil qur'ani jàng lu bokkut ak fatiha wal jaaru ak biral wal israaru ak yelu wa takbiru ak kabar ga siwa takbir ihrami na rek kabar armal wa tahmidu ak wax samihallahu liman hamida wa tashhudu ak taay ba al awal ba eji jëkk wal julus ak jataay ba al awal ba eji jëkk ndaxoo ñeel taay boobee wa tashhudu ak taay ba al axir ba eji ma jëf sunna yi fetliku mooy yii saar wa ngay jàng ci gannaaw fatiha ci rakk bu jëkk ak bu ñaareel mbaa boog lu wecc aw saar niki laaya mbaa ñaari laaya sunna su fetliku la biral ca fañ ko diglee sunna su fetliku la ak yelu ca fañ la ko digalee ak bépp allahu akbar booy wax te bokkut ak ba ngay njëkkee ba ngay njëkkee muy kàbbaru armal moom farata la waaye bokkut ak moom nag sunna su dëgër la ak wax nga samihallahu liman hamida sunna su dëgër la ak taaya ba jëkk akub jataayam ak taaya ba mujj akub jataayam loolu mooy sunna yi nga xam ne yu feet li ko lañ wala sujooda déet sujood li tarki sunnatin ngir bàyyi sunna xayri mu akkadatin sud suñ feddali sunna soo xam ne kenn feetliwu ko mu ba ci bàyyee benn dong dong du aajowoo sujoodal ka takbirat niki ab kàbbar waaxidat mbir benn xayri takbirat ihraam bu dul kàbbar armal maanaam benn allah akbar bokkut ak bu armal bi ndax xam sax sunna gu dëgër la wax nga ko léegi waaye bàyyi ko benn bàyyi ca benn dong du aajowoo sujootal faaw nga bàyyi ci ñaar mbaalu ko door ko sujootal ne moom sax sunna bu dëgër la nekkul bu woyof wala li tërki fadilat bi jàggeen ngir bàyyi ngëneel gal xunóot mi ki xunóot fi su fi ci julli suba bàyyi ngëneel ci julli képp du taxa sujoot mel ne bàyyi xunóot rek loolu du taxa sujoot fayin sajona dem sujoot na laxumaa ñeel leen ñoom ñaar batar kon yàqu salaatu julleem nga nee na sax bàyyi benn allahu akbar mbaa bàyyi ngëneel bu la taxee sujoot sujootu xawle salaam julli nga daal yàqu wala li farida du jaageen ngir bàyyi farata ka takbir ihraam yi ni kabar armal maanaam bàyyi farata du tax a sujoot ndax moom sujoot mënu koo defar mais ne ba bàyyi woon kabar armal baa nga bàyyi jàng fatiha bi mel noonu sujoot mënu koo defar aw li siyaadati xawlin wala ngir dolli wax xeyri mubtilin jul aji yàq li salaati ñeel julli ga kal kalaam bi ni ki wax alxalilu ji aji néew saxwan ci njuumte aw fii ni wala jëf xeyri mubtilin jul aji yàq ka siyaaret rek xatin ni ki dolli ab ràkk fi rubaaxeet ci julli ñeent ràkk saxwan ci njuumte su fekkee da ngaa wax wax boo xam ne teyoo ko ni ki wax ju néew rek joo xam ne njuumtee tax teyoo ko moom du yàq julli ga li bëgg wax nag mooy doo ko sujootal ay wax ji gën a siiw mooy da nga ko sujootal saa yoo jullee rek juum ba wax te wax ja bariwut julli ga du yàqu ca wax ja waaye da nga ko sujootal moom li wax ji nag mooy doo ci sujoot ba tey boo dee julli jëf-jëf joo xam daa bokk ci xeetu julli nga yokk ko ca te bokkul ci la yàq julli ga mel ni nga yokk benn ràkk julli ñeent ràkk li waxee mooy du aajowoo sujoot waaye wax ji gën a wóor mooy ah kay da nga sujoot boo yokkee benn ràkk te ak góor ci tollante julli ga ni ñu ko waxee woon ci gannaaw nga sujjoot ba xam salaam ndax ab yokk la li waxee nag moom mooy doo ci sujootante wal insiraat ak wëlbatiku alxariib gi aji jege mi ne salaat julli ga saxwan ci njuumte boo dee julli ba yàgg nga mel ne ku bàyyi julli gi rek fàttee wax asalaamaaleykum waaye gaaw nga koo fàttaliku da ngay toogaat ba njëkk daal di wax asalaamaaleykum rek mu daal di baax wa maxallu sujjooti sax wi bérébu sujjooti jamooj ba muxtalifun aji wuute la ndax fa siyaadat ndolleen la fàqa dong yes di doona sujjoot la àññal ko ba an salaam ci gannaaw salmal wa naqsu te wàññi moom fàqa dong awi naqsu wala wàññi wa siyaadat ak dolli yes di doona sujjoot la xumaa ñeel leen ñoom ñaar xam la salaam njëkk salmal ñu ne sujjootu jamono fañ koy defee day wuute ndax bu fekkee da ngaa yokk kese yokk dong dong moom ci sa julli kon sujjootu jamono bi da nga koy def gannaaw boo jullee ba taaye ba sëlmal loolu moo tax ñu koy tuddee baxandu salaam ndax da ngay bàyyi ba julli ba taaye ba sëlmal ba noppi bu fekkee da ngaa wàññi kese nag wala nga boole wàññi ci wet yokk ci wet nag ñoom ñoo bokkaate da ngay sujjoot xabal salaam maanaam boo jullee ba taaye ba mu des wax asalaamaaleykum foofu ngay sujjooti sujjootu jamono ji del baam waa taay ji nag door a sëlmal wasifatu foo meloom wa sajdataan ñaari sujjóot la yu kabir dana kàbbar la xumaa ñeleen ñoom ñaar fi ibtidaa ihima seenu tàmbali wa rafi ak ci siggi ga min xumaa ñoom ñaar way waxi tawi baamu attasho way waaye du tawi baamu attasho da taaye ja fil xam ne yi ca sujjóotum xam la ba su ma yu salim topp mu door a sëlmal bu déggee sujjóotu jamono da xamal ne du benn ñaar lay doon li digalee njëkk sëlmal bala ngaa sëlmal da ngay sujjoot ñaari sujjoot te booy sëgg sujjoot na nga wax allahu akbar booy siggi noonu bu ñaari sujjoot ñi jeexee na ni nga am xawle salaam rek da ngay baamu waa taay door a sëlmal ndax dañoo bëgg sëlmal bi topp taay moo tax ndax am baxal salaam sax loolu la ñu tàmm dañoo bëgg sax baxal salaam boo sujjooti ñaari sujjoot ñi nga baamu waa taay ja sëlmalaat boole ja fa in saxaan jëm juum na alma moom ma moom xalfal imaam ci gannaaw ilimaan fa inal imaam nag ilimaan ba yaxmiluhu dana ko yenu xan walis ko nee na boo àndeeg ilimaan la nga jot a ànd ak moom moom soo ca juumee loo xam ne bu la ñëw dong mu aajow sujjoot kon ilimaan gàtt na ko du aajow ngay sujjoot mel ni nga ànd ak ilim mel ni nga ànd ak ilimaan di fàtte wax allahu akbar bàyyi ko ñaar yoon bàññat loolu bu la ñëw dong mu aajow sujjootal waaye boo ànd ak ilimaan ilimaan gàtt na ko wayel sumu dana war al ma moo ma moom ma saxwul imaam yi ca moo jub ilimaan ba way lam yesul ak doon te juumut maa xoo ànd ak moom wala xadarante teewut sax waxoo juumam nga ba tey nag nee na ilimaan boo xasee ànd ak moom rek sujjóot jamono bu ko war daal lay war doonte sax lam juum bay sujjóot fekki woo ko dala koo rawee it du tee da nga xas nga am ci julleem lu ma tubaraka rek moom sujjóot bu ko war rek war la bu la rawee nag moom buy def xamle salaam mën nga ànd ak moom waaye buy def baxal salaam da ngay bàyyi ba fay li mu rawee ba noppi waaw kay door a def nag baxal salaam ba faslul li ab dog la salaatul jamaahati jullik mbooloo sunnatun sunna la mu àkk datun suñu suñu feetale nee na julli farata yi nga jullee ko ci mbooloo sunna su dëgër la te yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax ca nga ne lu rëy rëy wax ne salaatul jamaahati afdalu min salaati ahadikum waxdahu bi xamsin wa xishrina jusan wa fi riwayatin bi sabahin wa xishrina darajatan jullig mbooloo moo gën jullig kenn ci yéen moom dong dëggale na ko ñaar fukki xaaj ak juróom baa boog ñaar fukki degare juróom ñaar ndax na nett lee wuute wala yaxsulu du am fadluha ngëneelam la illa bi idraaki rakxatin dara ci jotuk ab rakka bi sajdatayha ànd ak ñaari sujjootam ña nee na bala ngaa am nga ne lu mat nag ci julli mbooloo ga nga fekke ca ràkk boo xam ne mat na sëkk ndax fekke nga ñaari sujjoot ña fekke nga rukoo ba fekke ñaari sujjoot ña loolu boo ko defee am nga nga ne lu mbooloo ma du tee nag nga fekke ràkk yépp moo lay ëpp leen nga neew boo man ab rakaha koo xam ne jot na ràkk boobee lay sa loxo dee di ko ñeel ay yuhiidaa mu baamu ko fii jamaatin ci am mbooloo oxraa ma neen nee na boo xasee ñëw ci julli mbooloo ba fekk ci benn rakk mat kon jeex na doo mën a baamuwaat ci beneen mbooloo ndax dama bëgg nga ne lu gën a bari wal jamaahatu mbooloo nag is naa ni mooy ñaar fa saahi dan topp lu ko ëpp nee na mbooloo ci julli moom mooy ñaar ak lu ko gën a bari am nañu ne nag ñaar ñi doon ci sax kenn ka mooy ilimaan ba ak keneen muy ñaar du ko tee doon mbooloo loolu am nañ ci wuute waaye nag bu fekkoon ne kenn ku ilimaan di raatu la moom ñëpp maasa ci ne taxaw na taxawaayu mbooloo bu julli woon moom dong te boo àndee ak moom julli it mu yéen ñaar teewul la am ngëneel ndax loolu nattab luñ ko li ñuy déng-déng kay di ci am déng-déng kay di ci wuute mooy kenn koo xam nekkul ilimaan di raatu nga ànd ak moom julli ndax dana tax nga am ngëneelul mbooloom déet wa man sàllaa ku julli waxdahu moom rek aw lam yudrik wala jotul maxal imaam yi ànd ak ilimaan ba rakxatan ab rakk kaamilatan bi aji mat fa inna lahu naka ñeel na ko ay yuhidaha mu baamu ko fii jamaatin ci am mbooloo ñeneen boo jullee yow dong wala ñëwoon nga di ànd ak mbooloo mu waaye amoo ci sax lu matu rakka kon boo gisaatee mbooloo muy julli man ngaa baamu waa julli ga nga julli woon ndax nga am nga neelul mbooloo aw maxa waaxidin wala ànd ak kenn ma amuuman mbir mu muy maamoom naawiyante aji yéene bi daalika ci loolee ab tafwida jooyal mbir ma jëme ci yàlla mbaa nga ne féetale mbir ma yàlla ci sartub inkaarat nem nekk na tilka salaat googi julli xayral maxribi du timis di lu bokkut ak timis wakasaani ki nii alxishaaw gee baxadi wétrin ci gannaaw wetar saxihin ji aji wér nee na doonte kenn nga gis sax muy julli mën nga ànd ak moom rek baamuwaat waaye booy baamuwaat nag yow yaay nekk maa moom maanaam ka nga xam ne jullee gu doon mooy jiite yow da ngay mel ne da ngay naafile kese te kon boo jiitee kooka moom du baaxle ngay bàyyi ko jullee gud moom jiite nga ànd ak moom baamu bu ko defee nag nga féetale mbir mi yàlla ne ko yàlla man julli woon naa te maa ngi baamuwaat goo ci def muy saa farat rek baax na waaye maa ngi baamuwaat daal moom ndax am ngëneel ne day aajo woon nag julli nga ngay baamu bañ a nekk timis ndax timis moom boo xasee julli tam baax doo ko sañ a baamu ci mbooloo ngir bëgg ngëneel dañ koy aaye gars itam bu fekkee wétaragoo mën nga koo baamu ngir ngëneel waaye boo xasee wétar teg ca nag moom duñ tañuy bañ nga baamu ko ngir bëgg ngëneel rek ndax li yonante bi ne woon ijxaloo axira salaatikum minal layli witran seen julli guddi mu jël leen ko wetar te wetar nga ba noppi loolu moo tax duñ bëgg ngay baamuwaat gee ngir am ngëneel lim la wax léegi nag moom doonte kenn la koo xam du élimaan raatibit te julleegul rek mën nga ànd ak moom mu moom mu jiite la yow ngay baamu sa julli ndax nga am ngëneel moom jooju wax la ànd am nañ ci wóote am nañu ne bu dee kenn rek koo xam ne moom nekkut ilimaan ratib boo àndee ak moom baamu du la tax am ngëneel mbooloo wa man koo xam ne uqimat taxawalees na xale ci moom tilka salaat googee julli waxute moom fil masjid nekk na ci jàkka ja fa innahu naka moom laa yabda du sañ a tàmbali bi tilka salaati ci googee julli wala xiriha du caagir gul moom fardan mbir mu muy farata aw nafl wala muy naafila nee na nag su fekkee ne yow julli nga julli nga ko ba noppi ba am ci ngëneel nga nekk jàkk ji nag ñu li xaabal ilimaan jëmmi julli googa julli nga julli nga julli ba am ci ngëneel ba noppi da ngaa nekk jàkk ji ñu koy li xaamalal ilimaan te bu fekkee ne amu góor ci woon ngëneel moom da ngay daal di ànd ca baamu ndax nga am ngëneel ndegam yaa ngi jàkk ji daal moom ñu ngi xaamal ilimaan ak julli te julli googu julli nga ko noppi yow te am nga ca ngëneel boole ci ci mbooloo nga ko julli sooy boo jàpp ci say bakkan génn mel na kuy bari waaye doo fa sañ a tàmbali keneen te doo sañ a ànd ci googa fas lu ndi ab dog la shurootul imaamati sarti jiite ci sartu juróom-ñeent la kii jiite am na juróom-ñeent sart ak awalu bu njëkk ba ak tahaaratu moo di ak laab fala tasihu du wér imaamatu man jiitu koo xam ne sàllaa julli na muhdisan mbir mu ngi aji toj le mu taxam mi den te aji tey boole ca nee na kii jiite balaa ak jiite mu baax mu amee laab waaye bu ko waaye bu ko tayee jiite te fekk jàpput mbaa sangul farata amutum laab day yàqule ba noppi maanaam moom xam ne day fo rek julliwut waaye léegi ñoom jiite itam dañuy yàqule su fekkoon nag daa jàppoon ne moom laab na ba tax mu jiite mbooloo ma gannaaw ba nag mu jullee bu sëlma mu door a fàttaliku ne ah moom kat amewoon na mu toj su boobaa mbooloo mu baax le nañ menn moom rek moo dul baax le kon tey ga rek mu yàqal jiite waaye bu ko teyut jiite leen noonee ngir jàpp ne am nag laab bu mu sëlmalee mu door a xam ne amatul laab moom rek mooy war a julliwaat gannaaw bu wuteeg laab waaye mbooloo ma ñoom baax le nañ attaani ñaareel bi allah yekkoona mooy bañ a nekk ma mooman di maa moom fa ma ñëq te daa ku roy bi mas boo xen ci ku ni raw aw bi ma amoon wala ci maa moom aw bi ma moomin